sëriñ Abdul Ahad Mbacke sëriñ Abdul Ahad Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atum 1922 ci dëkk bu sell bii di Touba di doomu cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ibnu sëriñ Touba xaadim rasul ak ku ñu wax soxna xujja kumbaloo cheikh Abdul Ahad Mbacke ibnu soxna xujja kumbaloo am na nag ñu mbokkal kii di soxna xujja kumbaloo ñu mën caa ràññee nag jigéenam ba soxna Nafisatu Mbacke bintu soxna xujja kumbaloo bintu cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ak moom cheikh Abdul Ahad Mbacke ibnu soxna xujja kumbaloo ibnu cheikh Mouhamadou Lamine Lamine Baara Mbàkke kenn rek la bokkal waajur wu jigéen ci mbooleem njabootuk Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke gi muy soxna Nafisatu Mbàkke ginnaaw bu mu feeñee jamono ci at moom nag di atum 1922 waajuram Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke rakkam Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ibnu Sëriñ Tuuba Xaadim Rasuul nag la ko tuddee mu bokk itam nag ci turandooy Sëriñ Tuuba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke yi mag moom doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke bi ñu wax leen lan moo tax waajuram Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke tuddee ko rakkam Sëriñ Tuuba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ndax bi Sëriñ Tuuba feeñee jamono ci atum 1914 ba ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool miy waajuram tudde ko abdul ahat sëriñ tubaa xaadim rasool mi ngi doon wax nag ci doom jooju feeñ jamono di abdul ahat di wax ne képp koo xam ne nii yaa ngi wax tur ni mu waree te doo ko yàq yow malxiyaam moom moo la ameel nag ak pay seexul xaddiim nag doon ca teg ne doomam jii nag di abdul ahat am na ci moom itam yaakaar loolu itam nag taxoon na cheikh ma mu déggee kàdduy waajuram yooyu seexul xaddiim ma nga doon wax ne nag mi ngi ñaan suñ nag mu njëkk a tudde nag rakkam ji doom di sëriñ Abdul Ahad Mbacke lool moo waral nag bi mu amee doom ci atum 1922 mu fayee ko doomu baayam boobu nag di sëriñ Touba Cheikh Abdul Ahad Mbacke barkeelu waale ci nag ci kaddu yi waajuram waxoon di Cheikhul Khadim lii nag moom moo waral nag Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke faye rakkam jooju nag aw turandoo di sëriñ Abdul Ahad Mbacke ginnaaw bu mu ko tuddee rakkam Cheikh Abdul Ahad Mbacke ibnu sëriñ Touba Khadim Rasoul waajuram Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke defoon na nag benn Ahad Mbacke di ñaan nag suñ boroom ci doomam jii nag mu faye rakkam jii nag di sëriñ Abdul Ahad Mbacke suñ boroom nag guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te defal ko nag barke ci doomam jii nag mu tudde nag rakkam jii nag di sëriñ Abdul Ahad Mbacke soo delloo nag ci wayu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke nag defal doomam nag sëriñ Abdul Ahad Mbacke ma ngay woo nag suñ boroom di ko woo nag ci tur wii nag suñ boroom di wuyoo di samadu mu di ko xamal ne rek yow mii càppaacoli bi ma ngay ñaan nag suñ boroom nag mu muccal doomam jii nag di sëriñ Abdul Ahad Mbacke ma ngay ñaan suñ boroom te mu jàmmal ko ci doomam jii nag mu tudde sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ma ngi koy ñaan itam nag mu xamal ko bu dee sàkku xam-xam itam mu def xam-xam ci doomam ji nag di sëriñ Abdul Ahad ñaan googu nag la ko ñaanal ngir suñ boroom nag sàmm ko aar ko te dolli ko xam-xam te yiir ko ñu teewlu ko ya allahu ya samadu ya fardul ahad najji wa aafi alim abdakal ahad sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wéy nag nekk ak waajuram wu jigéen wii di soxna xujja kumbaloo ba mata dal alxuraanul karim nag waajuram cheikh mahamadou lamine baara mbàkke jël ko nag jébbal ko taalibeem ba sëriñ moor jaara géy bokkitim nag jàmbaar yi toppoon cheikh mamadou lamine baara mbàkke sëriñ moodu jaara géy mii nag moo dalal alxuraanul karim doomu sëriñ mahamadou lamine baara mbàkke bii nag di sëriñ abdul ahad mbàkke bi mu koy jébbal nag taalibeem bii nag di sëriñ moodu jaara géy sëriñ moodu faal di nijaayu sëriñ abdul ahad mbàkke ak waajuru sëriñ abdul ahad mbàkke bii di soxna xujja kumbaloo cheikh mamadou lamine baara mbàkke mi ngi doon xamal nag ñaari jëmm yooyu di leen waxal ne abdul ahad mbàkke mi buñ ko sonal ndax mbootum alxuraan nag moo nekk ci moom te suñ demee itam ñu wax sëriñ moodu jaara géy moom itam nag bu mu ko ci sonal ndax jëmm jooju nag di sëriñ Abdul Ahad Mbàkke mbootum alxuraan mi ngi ci moom loolu itam nag sëriñ Moodu Jaara Géey itam nag sàmmoon na ko ba tax na itam nag jàngal na alxuraan itam kii di Cheikh Abdul Ahad Mbàkke ci loxoy sëriñ du Jaara Géey nag la nekk ba ni waajuram génnee àdduna ci atum 1936 ginnaaw bu waajuram génnee àdduna ci atum 1936 moom sëriñ Abdul Ahad Mbàkke yóbbu woon nañ ko nag ci Mbàkke Kajoor ngir nag mu dem fekk si nag bisu waajuram bu mujj boobu ginnaaw bu ñu ñaanalee waajuram ba noppi moom sëriñ Abdul Ahad Mbacke cheikh Mamadul Moustapha Mbacke mi bokk ak waajuram nag soxna Aminata Lo ak cheikhul Xadim moo jëloon doomu cheikh Mamadul Lamine Baara Mbacke bii mu faye sëriñ Abdul Ahad Mbacke ibnu Xadim Rasul yóbbu ko nag ci dëkk boppam bii nag di Daaru Nahim ngir nag mu wéyal fa nag am njàngam ci loxoy ma cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ci dëkk bii nag di Daaru Nahim nag la géejoo nag ci wàllu xam-xam ginnaaw ba mu mokkalee alxuraan jàng xam-xam ci dëkk boobu nag di Daaru Nahim cheikh Mamadul Moustapha Mbacke moo ko fa jëlee nag jox ko ndigal Mbacke ci dëkkub Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke bii nag Serigne Modou Baara Mbacke nekkoon di Taysiir mu wéy nag nekk nag Taysiir ci loxoy magam Serigne Modou Baara Mbacke di ko xoole nag Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ndax moo fi toog toogaayu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke mu nekk nag ku déggoo ak magam toppitim nag ci ginnaawam def ko Serigne nag bañ koo def makka tudde na magam jooju nag di Serigne Modou Baara Mbacke doom ba ni matee taxawal kër ñu boole kook soxna suñuy wax soxna Looto Jóob soxna Looto Jóob mii sax moo meññi taawub Serigne Abdoul Ahad Baara muy kam faya magam ji Serigne Abdoul Aziz Baara baara sëriñ abdul aziz abdul ahad baara mii sax moo njëkk a nekk xalifab sëriñ abdul ahad baara ginnaaw bu fi sëriñ abdul ahad baara bàyyi koo mu wéy nag ànd ak magam nag sëriñ moodu baara mbàkke ba ni fi sëriñ moodu baara mbàkke bàyyi koo mu jël léppam nag jébbal jeneen magam ja di ko xoole nag cheikh mamadou lamine baara mbàkke def ko sëriñ def ko mag muy magam nag sëriñ abdul aziz baara mbàkke ba tax na taawam bii ko njëkk a wuutu sax magam jooju nag di sëriñ abdul aziz baara nag la ko tudde mu wéy nag topp nag ci ginnaaw magam sëriñ abdul aziz baara def ko sëriñ féete woon na sëriñ abdul Aziz Baara nag fu bare bari moo xam ci taalibe moo xam ci wërsëgam ba ci liggéey di ko jox moom dong nag la defoon nag Cheikh Mamadou Lamine Baaraam ba nim génnee àdduna ci atum 1990 moom sëriñ Abdul Ahad Baara ginnaaw Taysiir ci loxoy magam sëriñ Moodu Baara dem na itam nag ci dëkk bu ñuy wax Mbaraakan amoon fa itam kër di fa liggéey Mbaraakan nag dëkk la bu waajuram sañcoon Cheikh du Lamine Baara Mbàkke mu wéy nag nekk Mbaraakan nag di liggéey di yar di jàng ak di jàngale Njogomaay Njogomaay nag sëriñ Abdou Lahad Baara sanc ko maamam nag ju ñuy wax sëriñ Njogomaay mooy ki ko sanc maamam jooju nag di sëriñ Njogomaay moo meññ ku ñuy wax soxna Binta Fall soxna Binta Fall nag moo meññ soxna Xujja moo meññ sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Baara Mbacke loolu moo waral nag sëriñ Abdou Lahad Mbacke Baara sanc nag ak kër nag ci dëkk boobu nag di Njogomaay ci ndigal nag lu fi waajuram bàyyi woon di Cheikh ma Lamine Baara Mbacke Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke mi ngi doon xamal nag sëriñ Omar Lo di ko wax ne nag su matee am kër na wut kër nag ci dëkk boobu nag di njogomaay te boole kook fas wu weex akuk fetal loolu moo waral itam nag sëriñ Abdul Ahad Baara nag dem fa wut fa kër ginnaaw bu mu nekkee nag ci dëkk boobu nag di njogomaay ba wut fa kër magam sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di doomu Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ku xaritoo nag rakkam ji la nag di sëriñ Abdul Ahad Baara ba tax na nag sëriñ Abdul Ahad Baara Mbacke nag defoon na ko mag def ko sëriñ na sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bépp tukki bu mu daa def nag ci Afrique daana ànd ak rakkam Cheikh Mbacke Fatma bu Serigne Abdou Lahad Baara nag mi ngi fii te Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag la ko tudde Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag rakk la doon xoole Serigne Abdou Lahad Baara waaye Serigne Abdou Lahad Baara itam nag mag la doon xoole Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma loolu itam nag tax na nag bi Serigne Abdou Lahad Baara nag sancee ak kër nag ci dëkk boobu nag di Njogamaay Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waxoon na nag ku ñuy wax Serigne Masilla Ñaaxeen mu defaral am néeg nag Serigne Abdou Lahad Baara nag ci dëkk boobu nag di Njogamaay ba tey itam nag Serigne Cheikh Gaynde Fatma waxoon na ku ñuy wax Serigne Mbay Njaay ci dëkk bu ñuy wax Njaan Ceel ngir ngir itim nag mu taxawal nag sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nag ab néeg itim nag ci dëkk boobu nag di njogomaay ñaari jëmm yooyu nag bokk nañ nag ci ñi sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma waxoon ñu wutal nag sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nag ay néeg nag ci dëkk boobu nag di njogomaay njogomaay googu sax ginnaaw bi ñu fi jógee ci atum 1990 doomam ji nag mu faye Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke di sëriñ Cheikh Baara Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Baara moo fa féete sëriñ Abdul Ahad Baara Mbàkke itim nag daana fa def gàmm gu mag mag a mag dëkk boobu nag di njogomaay ginnaaw koor gi itam nag daanañ wéyal gàmmu ga doomam jii ko wuutu foofu nag di cheikh mamadou lamine baara mbàkke moom sëriñ abdul ahad baara jëlee na bis boobu nag ci gàmmu def ko nag bisub alxuraanul karim ngir nag di wéyal nag ndonal waajuram woowu nag mu doon amal nag ci dëkk boobu nag di njogamaay ginnaaw njogamaay nag sëriñ abdul ahad baara amaatoon na kër nag ci dëkk bii nag di mbàkke njokku mbàkke njokku nag waajuram cheikh mamadou lamine baara mbàkke itam nag moo ko gor waaye doomu cheikh mamadou lamine baara mbàkke bii nag di sëriñ abdul karim baara moo fa nekkoon ginnaaw bu fa sëriñ abdul karim baara mbàkke bàyyi ko lañ fa yóbbu woon nag kii nag di sëriñ Abdul Ahad Mbacke Baara mu nekk fa ba tax na itam foofu itam amoon na fa kër amoon na fa itam nag daara ginnaaw Mbacke njokk nag la sanc nag dëkk bu ñuy wax Wajalde Wajalde nag mi ngi ci région nag de Louga ci wetu dëkk bii ñuy wax Thiel ci atum 1976 ginnaaw bu mu seetee àll boobu nag ci atum 1976 ba àll boobu nag doy ko la fa sanc nag ab dëkk tudde ko nag Wajalde tur nag mi ngi jóge nag ci turub déeg déeg la boo xam ne nii déeg bu mag a mag a mag ku nekk nag ci tundu Thiel woowu boobee dëkk bi mu sanc itam nag soriwul déeg boobu moo tax itam mu tudde ko nag turu déeg ba muy wajalde ci atu 1976 booba nag xalifa waajuróom bii nag di sëriñ Abdul Aziz Baara nag mi ngi fi ak turandoom wii nag di sëriñ Touba Cheikh Abdul Ahad Mbacke ginnaaw bu sëriñ Abdul Ahad Baara nag gisee suuf soosu ba sanc ko lii di assemblée nationale bu Sénégal ñoo ko autorisé nag ci loi wala décret buñ génnee woon ngir jox suuf soosu nag kii di sëriñ Abdul Ahad Baara loola itam tax na ba nëgën itam nag dëkk boobu nag ci moomeelu sëriñ Abdul la nekk dëkk boobu nag di wajalde ginnaaw bu mu ko sancee nag ci atum 1976 jàmbaari a mamadou lamine baara mbàkke bii ñuy wax sëriñ ma koddu kase la fa àndaloon nag ngir gor dëkk ba ginnaaw bu mu ko sancee nag àndoon na faak nag ay góor yàlla yu takkoo takku di itim nag ay boroomi kër ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ babacar loo ñu gën koo xam ci sëriñ mbay loo dëkkoon nag ci dëkk bii nag di daaru muxti sëriñ babacar loo mi sax la tudde doomam ji nag di sëriñ babacar mbàkke ñaareelu boroom kër gu sëriñ abdoulahat baara mbàkke yóbbu woon ku wax sëriñ Cheikh Anta Diop dëkk itam nag dëkk bii nag di Mbaraakan ñetteelu boroom kër gu sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke yóbbu woon nag ci dëkk boobu mooy ku ñu doon wax sëriñ Sayer Diop dëkk itam nag ci dëkk bii nag di Daaru Diop ñeenteelu boroom kër nag bu sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke yóbbu woon nag ci dëkk boobu nag di Wajalde mooy ku doon wax sëriñ Cheikh Ndiaye dëkk nag ci dëkk bii nag di Mbaam Jigaan ak ku ñu doon wax sëriñ Ousmane Ndiaye baneen boroom kër itam bu mu fa yóbbu woon mooy ku ñu doon wax sëriñ Thierno Gueye sëriñ Njaxat Seck Baye sëriñ Diop Abdou Maram Fall ku ñu doon ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi fa yóbbu ñii ñépp nag ba leen fa sëriñ Abdou Lahad Mbacke Baara nag di yóbbu ay boroomi kër lañ nag tey itam nag ay responsabilité yu rëy nag lañ yoroon nag ci dëkk yooyu ñu nekkoon mu jël leen nag yóbbu leen ci wajalde googu yoral leen nag seeni kër ginnaaw borom kër yooyu mu yóbbu woon nag ci dëkk boobu nag di wajalde yóbbu wootoon na fa nag ay donga ngir itam nag ñu nekk nag ci daara ja nga xam ne moom la fa taxawal ñu mënoon a ràññee nag ci donga ya fa njëkkoon nag ci daara ja ku ñuy wax sëriñ Mbay Wàdd sëriñ Abdou Lahad Guèye sëriñ Abdou Lahad Sène sëriñ Mamour Diop sëriñ Mbacke Diop sëriñ Thierno Dia sëriñ Modou Dia ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak doomam ji nag di sëriñ Abdul Xadim Mbàkke ñu nekk nag ci dëkk boobu nag di waajal de di yar di jàng ak di jàngale lu mu am nag it ay magam ak waajuróom nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ba tax na itam nag ci dëkk boobu nag di waajal de mbooleem doomu Cheikhul Xadim itam ñëpp fekk nañ ko fa sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ñëw na fa fekk si ko fa ndax mooy turandoom mooy léppam Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul itam ñëw na ci dëkk boobu nag di waajal de itam seet na itam nag ci dëkk boobu itim nag di waajal day itim fekk moom daanaka fa la dëkkoon ndax saa su ne ma nga woon ci dëkk boobu nag di waajal de mu wéy nag topp nag ci ay magam ak ay waajuram ba ni mu génnee àdduna ci atum na itim nag yeneen i daara ndax dëkk bii nag di mbaraakan amoon na fa daara suuf si itim nag di peteñ itim amoon na fa daara dëkk bi itim nag di siiwka amoon na fa daara ak dëkk bii nag mu doonnoo nag ay nijaayam di njogomaa itim amoon na fa daara ginnaaw daara yooyu mu taxawal nag ci biir réew mi ay kër itim nag amoon na ko ci biir réew mi moom doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke bii ñu man cee ràññee kër gum amoon ci Touba guy mbind kër gum amoon itam ci Mbàkke Kajoor di dëkkub waajuram kër gum am ci Mbàkke Njokku di dëkkub waajuram kër gum am itam ci Njogomaay di dëkkub maamam kër gum am itam ci Mbaraakan di dëkkub waajuram kër gum am ci Lugaloo ak dëkk bee mu gor nag di wajal de kër gum fa am ak yeneen ak yeneen ni kër nag yu mu am ci biir réew mi moom doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke bi moom doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke bi nag nekk itam nag ak ko eggaleel am njàngam yóbbu ko itam nag ci dëkku boppam bu ñu tuddee daaru nahim ba tax na itam nag ci dëkk boobu nag di daaru nahim fara sëñ abdoulahat baara mbàkke miy géejoo ci wàllu xam-xam waajuram cheikh mamadul faadal mbàkke itam nag ko jaxasoo woon ak doomam ji la nag di sëriñ abdoulahat baara ndax cheikh mamadou lamin baara mbàkke la ko daa xoole ñaari doomi cheikh mamadul faadal mbàkke yi ak sëriñ abdoulahat baara mbàkke itam ñoo bokk génération muy cheikh mamadou lamin baara mbàkke mi cheikh mamadul faadal mbàkke faye waajuram cheikh mamadou lamin baara mbàkke ak doomu cheikh mamadul faadal mbàkke bii Saaliwu Mbàkke ñoog sëriñ Abdou Lahad Baara nag ñoo bokk génération loolu itam nag tax na waajuram Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke fonkoon ko lool waajuram Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke moo ñu indil sëriñ Abdou Lahad Mbàkke Baara moo ñu xamal itam kan mooy sëriñ Abdou Lahad Mbàkke Baara bi mu feeñee jamono la doon wax nag ñi ko gën a jege di leen wax ne nag kii di Abdou Lahad Baara mbootum alxuraan moo nekk ci moom loolu itam nag tax na waajuram itam Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke def na itam ay way ci moom ngir di ko ñaanal suñ borom teg ko loxo loolu itam nag tax faye ko doom ndax sëriñ cheikh baara laxat mi ngi fii te waajuróom waajuróom la ko faye cheikh mouhamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul ku jaxasoo woon ak doomam jii la nag di sëriñ abdou lahat mbàkke baara ba tax na itim nag cheikh mouhamadul bachir mbàkke daana ko seeti sëriñ tuubaa cheikh abdou lahat mbàkke moom la cheikh mamadou lamine baara mbàkke nag faye doomam ji ba tax na nag sëriñ tuubaa cheikh abdou lahat mbàkke ku jaxasoo woon ak turandoo moom wii la di sëriñ abdul nekk nag sëriñ tuubaa cheikh Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke am na ko turandoom wii nag di sëriñ Abdou Baara itam nag am na ko sëriñ Touba sëriñ Abdou Khader Mbacke ku doomam ji nag di sëriñ Abdou Baara Mbacke yéemoon la ba tax na nag alxamis ju jot daana woolu nag kii di sëriñ Abdou Lahad Baara fépp fu sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke dem itam fekk na ko fa ginnaaw bu sëriñ Abdou Lahad Mbacke Baara génnee àdduna itam sëriñ Abdou Khader Mbacke moo ko jullee kon nag moom borom tawféex la digganteem ak sëriñ Abdou Khader Mbacke itam nag diggante bu jaxasoo la kii di sëriñ Abdou Lahad Baara sëriñ Jiili Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad Baara sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke itam nag la ko jébbaloon ngir mu yar ko loolu itam nag na sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke jàppe woon na doomam ji nag di sëriñ Abdou Lahad Mbàkke Baara sëriñ Baara Mbàkke sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke itam nag daana wax ne saa bu nammee sëriñ Baara lay woo sëriñ Tuubaa Seex Saalihu Mbàkke ku jaxasoo woon ak doomam ji la nag di sëriñ Abdou Lahad Baara ba tax na itam nag fekk na ko foofu mu nekk sax di wajal de ngir seetse ko fa ak ngan sëriñ Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon Lahad Baara Mbàkke ba na itam nag fépp fu sëriñ Abdou Lahad Baara Mbàkke nekk itam fekk na ko fa dëkk bii nag di wajal de Cheikh Mbàkke Xaadim Rasuul nag ab dëkkam la ko defoon ba tax na itam nag daana fa gane ji doomam ji ci lu tolloog nag juróom-ñetti fan jàpp fukki fan doomam ji nag di sëriñ Abdou Lahad Baara Mbàkke itam tudde na ko doom sëriñ Mourtada Mbàkke Abdou Lahad Baara mi ngi fi te waajuram Cheikh Mourtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul la ko faye ay magi boppam ak ay rakki boppam di ñim séqal Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ñëpp moom la amaloon kóllëre ñi ko ci mag ñëpp nag mag la leen màggitim nag rakk la leen jàppe woon ba tax na nag njabootu cheikh mamadou lamine baara mbàkke gi ñu ci takkoo takkoo takku moo xam góor ak jigéen tudde na leen doom ñu mën cee ràññee sëriñ moodu baara mbàkke magam sëriñ abdul aziz baara mbàkke magam sëriñ abo mbàkke ibnu cheikh mamadou lamine baara ko doom sëriñ moom sëriñ baara mbàkke sëriñ abdoulahat baara tudde na ko doom sëriñ yiddaali mbàkke moom sëriñ baara ci di sëriñ abdoulahat baara mbàkke tudde na ko doom sëriñ abdul karim mbàkke moom sëriñ baara ci di sëriñ abdoulahat baara tudde na ko doom sëriñ cheikh fati Fall Mbacke moom sëriñ Baara kii di sëriñ Abdou Lahad Mbacke Baara tudde na ko doom sëriñ Abdul Xaadim Mbacke moom sëriñ Baara kii di sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke tudde na ko doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ci doomu Cheikh Mamadou Lamine yi bintu Cheikh Mamadou Lamine yi itam muy njaboot gu jigéenuk Cheikh Mamadou Lamine gi kii di seen càmmiñ sëriñ Abdou Lahad ñu ci bare bare bari tudd na leen doom ay magam nag yim bokkal Xaadim Rasuul ku mel na sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ku jaxasoo woon nag sëriñ daa def nag ci Afrique yu ci baree baree bare ànd na kook rakkam ji nag sëriñ Abdou Baara Mbacke ba tax na nag sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke tudde na doom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma magam sëriñ Mbacke Madina ku jaxasoo woon nag sëriñ Abdou Baara la ba tax na itam nag sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke tudde na ko doom sëriñ Ahmadou Mbacke tundoo di moom Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke kii di sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke itam nag tudde na ko doom Daaru Xudóos ak Guy Mbind nag benn lañ loolu moo taxoon itam nag jàppe woon na leen ay mag sëriñ Moussa Mbacke bu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke kii di sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke tudde na ko doom Serigne Moussa Mbacke Abdou Lahad Baara mi ngi fi te Serigne Moussa Mbacke moom Serigne Bassirou nag la ko Serigne Abdou Lahad Mbacke Baara tuddee Serigne Cheikhouna Mbacke moom Serigne Abdou Lahad Mbacke Serigne Abdou Lahad Baara tuddee na ko doom mu nekkitim nag ku yéeme nekkitim na ku kiimaane moom doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke bi ba tax na itim nag ci wàllu ñaan daana ci defitim nag lu kiimaane ndax bari nañ ñoo xam ne nii suñ masaa tàggoog nag seen sago Cheikh Abdou Lahad Baara rek la seenu njaboot nag di xalaat ngir yit ko nag seen doom jooju nag am ay jafe-jafe ba tax na nag ñi masaa tàggoog seen xel ci jamonoy Serigne Abdou Abdoulahat Baara Mbàkke képp kuñ ci masaa indil nag sëñ Abdoulahat Baara Mbàkke say waajur la jariñoo ndax kat sëñ Abdoulahat daana dindi la la ba tey Baara Mbàkke di Njuga Kebe ku jaxasoo woon nag sëñ Abdoulahat Baara la milliards yi Njuga Kebe am dafa am bis nag Njuga Kebe dajee woon ak moom ci réew yi Afrique yi booba nag mu nga jëmoon Zaïre nag ci Mobutu ginnaaw bu mu dajeeg sëñ Abdoulahat Baara Mbàkke ci ànd gum àndoon ak Sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ci tukki Njuga Kebe nag mi Baara Mbàkke damaa bëgg nag nga ñaanal ma nag ma bokk nag ci milliards yi seexul xaddiim yi wala ma bokk nag ci milliardaireu seexul nag na ko ginnaaw bu Njuga Kebe giseeg mu butu nag bokk na itam nag ci li indil nag milliards yi mu am kóllëre googu itam nag Njuga Kebe jàppoon na ko sàmmoon na ko ba am bis nag Njuga Kebe invité woon Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbàkke nag ak ngan nag ci Ndakaaru ngan googa nag Sëriñ Abdou Lahad Baara Mbàkke mi itam àndoon na ca ngir nag ànd ak turandoom woowu nag di Ndakaaru Njuga Kebe nag doon na wër nag mbooleem àndoon nag sëriñ Touba Cheikh Abdou ba mu gisee nag sëriñ Abdou Lahad na ko doon ma ñaanaloon de gis naa ko ndax lii ma am de bokk nga ci ñi ko waral waaye nag fii ma nekk dafa xat danañ gisewaat ginnaaw nag bu sëriñ Abdou Lahad Mbacke nag jógee ca ngan nga ñibbisi waa Touba njuga kebe itam nag jóge waatoon na Ndakaaru nag ñëw Touba ginnaaw bu mu tàggoo sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke di ko xamal ne nag day dem Kaolack ndax dafa am ay yitte ba sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad ñaanal ko bàyyi ko woon na nag kër sëriñ Touba kër sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñëw guy mbind nag doon seet si nag sëriñ Abdou Lahad Baara bi mu ñëwee nag ba gisee ak sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke ñaari million nag la ziyaare sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke di ko wax ne nag sëriñ bi damaa bëgg na nga gën maa ñaanal waaye jamono jii nag damay dem Kaolack su ma jógee fii ginnaaw bu mu toog Njuga Kebe moom sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke deux millions yooyu ko Njuga Kebe joxoon da koo séddale nag képp koo xam ni nii keroog fekke woon nga nganu Njuga Kebe googu ba tax na itim nag am na sax ñenn ci doomam yi di sëriñ Cheikh Baara Lahad Mbacke di ko xamal ne papa lan moo Ndiouga Kébé jox la xaalis bu toll nii nga séddalewaat ko askan wi mu di ko xamal ne de xaalis su koo xam ne nii dafa war a génn àdduna duma ko lekk te Ndiouga Kébé kat jamono jii nag mi ngi ci ay waxtoom yu mujj ginnaaw bu a Kébé nag jógee ci ngaan googu nag jëm kaw la ci la defee nag accident bi génn àdduna kon lii moom sëñ Abdou Lahad Baara def na ko wala wax na ko laataa Ndiouga Kébé nag di génn àdduna ku jaxasoo woon a Jili Mbay la Jili Mbay wólle réew sëriñ Abdou Lahad Baara Mbàkke la woon sëriñ Mouhamadou Saxiir Lo bu kokki ku jaxasoo woon ak kii sëriñ Abdou Lahad Baara la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag jaxasoo doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke bi nag nekk itam nag ku kiimaane nekk itam nag ku yéeme nekk nag koo xam ne nii nag jafe-jafe bu waaye am nag soo ñëwee nag mu fajal la ko moo xam ci wéra di xel ndax ku ci kiimaane la woon ba tax na itam nag bari na lool nag ci askan wi ñoo xam ne itam wéra di xel daloon na leen waaye sëriñ Abdou Lahad Baara Mbacke nag moo leen tàggalee ak moom mu nekk itam nag kuy dimbalee koo xam ne nii itam nag alalam nag du ko boolee kenn ba tax na itam nag lépp lu am nag bokk ko ñëpp loola itam nag taxoon na këram googu nag nekk doole yi ak bàyyooyi saa bu ñu xëyee nag daanañ jël si dépasse nag ci kër sëñ Abdou Baara Mbàkke moo leen ko war looloon ñi nga xam ne nii itam nag dañoo tukki nag te am ay jafe-jafe nag ci réew yooyu ñu nekk bu mënatu ñoo dellu si nag ci réew mi nag di Sénégal seen i njaboote itam sëñ Abdou Lahad Baara Mbàkke itam nag moo leen wuutu woon ci wàllu dépasse ba tax na nag itam nag bari na lool nag ci askan wi ñoo xam ne nii mën nañoo wax ne ginnaaw yàlla bu sama kër tësut sëñ Abdou Baara Mbàkke moo tax ndax nag dimbulee ak alalam nag du ko boole kenn moodu moodu yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew këyit sëriñ Abdou Lahad Baara Mbàkke nag bari na ci ñoo xam ne nii tim nag moo leen ñaanal nag bañ am ay këyit ku daa ñaan la ku daa dimbalee la ñaan googu sax mu daa def lu takku itam nag ci njabootam dañ koy def ba nëgëni wala njabootam gépp nag doon nañ ko nag ci wàllu ñaan ndax moom boroom xaas la woon wàllu diine itam nag def na ci lu takkoo takkoo takku moom sëriñ Abdou Lahad Baara ndax na ku fonkoon donal maamam la lii di màkkatal mu karama itam demu waaye nag doomam sëriñ Abdul Aziz Abdul Ahad Baara moo ko demal màkkatal mu mu wii nag dëkk yi fa la nekk nag di yar di jàng ak di jàngale ba ni mu génnee àdduna laataa muy génn àdduna moom sëriñ Abdul Ahad Baara def na itam nag lu kiimaane moom doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke bi ginnaaw bu waajuram sëriñ Abdou Xaadir Mbacke nag gane see magam sëriñ Abdul Aziz Baara ci dëkk boobu nag di Louga loo bi sëriñ Abdul Ahad Baara ñëwee nag ziyaare si waajuram woowu sëriñ Abdou Xaadir Mbacke ca kàddu yam waxanteeg waajuram sëriñ Abdou Xaadir Mbacke ginnaaw bu mu génnee nag la sëriñ Abdou Xaadir Mbacke nag di xamal mbooloo mi di leen wax ne sëriñ Abdul Ahad Baara Mbacke mii nii pareek man nag day tàggatoo ginnaaw bu mu jógee nag ci ngan googu sëriñ Abdou Khader Mbacke nag doon amal ci magam di sëriñ Abdoul Aziz Baara sëriñ Abdou Lahad Baara nag daa jóge ci dëkk boobu nag di lugaloo ñëwitim nag ci dëkk bii nag di njogomaay di dëkkub maamam ginnaaw bu mu ñëwee njogomaay nag la dajale nag mbooleem waa dëkk ba di góor ak jigéen di mag ak ndaw di leen xamal ne damaa bëgg nag saafonteeg yéen ndax damay waaja demkat ab tukki bu sori te xaw ma nag kañ laa gisante waat yéen moo tax nag ma bëggoon a tàggatoog yéen ndax tukki bi may dem googu fan yam am nag ci dëkk boobu nag di njogomaay daana def nag saa bu xëyee di wax nag mag ñi ko gën a jege xanaa fan yii de yéen a ngi dégg rajo yi di ma tàgge bu ko mag ñi waxee déedéet mu leen di xamal ne xawma nu ngeen def ba déggu leen ko waaye moonte rajo yu baree baree bari ñu ngi may tàgge saa su ne njogomaay googu nag ay fan yu néew nag la fa am jógee fa nag ñëw nag ci dëkku waajuram bii nag di mbàkke kajoor ginnaaw bu mu ñëwee nag ci dëkk bii nag di mbàkke kajoor kàddu yooyu mu doon wax nag ci njogomaay itam nag doon na ko fa wax muy xanaa yéen a dégg rajo yi di ma tàgge saa su ne mbàkke kajoor googu nag la ko fee feebar bi ko jëlee àdduna nag tëralee ginnaaw buñ ko jëlee mbàkke kajoor nag lañ ko indi nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba alxamis jiñ ko jëlee mbàkke kajoor indi ko Touba ci alxamis jooju nag la génn àdduna kiimaan gi itim nag sëriñ Abdou Baara def na ko laataa muy génn àdduna ci noonu nag la tàggatoog ñun ci ginnaaw nag feebar bu gàtt nag bu ko tëral ci bisub alxamis ñetti fan ci weeru koor ci atum 1410 nag ci gàddaay gi alxamis jooju itam at yu teg tuuti ci teewaayu doomam ji nag mu faye waajuram sëriñ baara mbàkke di sëriñ cheikh baara laxat mbàkke doomu cheikh mamadou lamine baara mbàkke bi di kam faye woon rakam ja nag sëriñ abdul ahad mbàkke mi ngi génn àdduna bisub alxemis ñetti fan ci weer wii nag di weeru koor ci atum 1410 ci gàddaay gi alxemis ñetti fani koor ci atum 1410 ci gàddaay gi dëppoog muy jeudi 29 mars 1990 jeudi 29 mars 1990 ci kër gi mu amoon nag ci Touba guy mbind ginnaaw buñ ko yëgalee xalifa waajuram di sëriñ Abdul Aziz Baara ak xalifam maamam bii nag di sëriñ Touba sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci booy dugg nag ci armeer yu magi ci wetu barabu waajuram ci sa loxo joor foofu nag lañ denc nag turandoo sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wi di doomu seex Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke bi sëtam bii nag di Pape Ale Diop defal na nag marché bu yaatu nag doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke bi di sëriñ Abdul Ahad Mbàkke Baara soo delloo nag ci marché bi ko sëriñ Pape Ale Diop defal mag Abdoulahat Mbacke melokaanam ak tabam yiwam ak nag taalibe nag gu sëriñ Abdoulahat Baara Mbacke amoon njëriñ daal amaloon askan wi loola nag lay nettali nag ci marché bii mu defal nag doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke bi ñu teewlu ko alhamdulilahi may santaat borom bi ma njar may soow xikmatu waa kër Bamba ak ña ko dar tey waykatub naa Cheikh Bamba ak ñu ko gëm ñii di sëtam ñii di ay doomam yu ñàkk ka dar maay dellu saddati ay way jóor ko mbër mu ñu xam moo xam ne kum song boo doon gay ne mujj kon ni ma mooy sëñ abdulaat baara fettam jëm na yàlla basar sa reetu aajo otob kéemaan saxaaru ngeneel gaaraasu sëñ laat la ñuy gaaree ba bopp fajar yërmaane jaam ñi la woon cëram ba cër la bu duun kafeem nga mooy xelli mbootum mbamba mooy la ko jar lu mu wax mu am dina am lu mu wax du am du fi am kum faj nga wéru kum fajul armeel ya moo di sa kër bàyyi baa ko sol mbóot ya ba mu doon bàyyi ba bàyyi ba di moom kuy tooñ ba agsi ci moom jaasim ja daal di ko cof fetal ga muy téere fu mu nee tëf malaaka ya fëx moo gaaw ci faj ak seddal lu tàng ne it ba ne ar te am yarit ba ne nër te yewu it ba ne jar moog yàlla ñoo a safar dam feesu woon dellu téewul fi mu ne daa lewetoon jëmmam ja it woyofoon te kuy mindéef du lolool te saa yu daan toog ci suuf lay toog ci ab basangam léegi-léegi du lal sax basang ñu ñaan daal di ko wër mu saf xorom lool ne daf daan wax ba ñëpp di ree kenn mës ta fu meree fu dul fu yàlla di mer moo dëdd àdduna am am doonutoon lu ko saf lu mu xas ba sol dina lii daa ngàkk baa naaw ba noppi nopp ni muut boo nee maa ngi France mu naan maa ngi sama kër foo gën mu gën la ba gën sax waaju gën ka la gën du tax mu naan maa la gën ba naan liyéey sama cër daa am ijaaba ba ñaan yàlla daa ko def ba ay sang fu ñu daan jaaxle rek na ko kar daa am ijaaba ba ñaan yàlla daa ko def ba ay sang luñ daan buñ daan jaaxle rek na ko kar ay xalifaam nag nii la tëddee moom sëriñ Abdou Lahad Mbacke Baara kam fayam magam ja sëriñ Abdoul Aziz xaddi mbàkke borom wajalde moo ko wuutu ci atum ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Abdou Lahad Baara boobu ak mbooleem nag ñim séqal sëriñ Abdou Lahad Mbàkke Baara moo xam góor ak jigéen ak bépp taalibeeb nag sëriñ Abdou Lahad Baara Mbàkke sëriñ Abdou Lahad Baara Mbàkke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku bu njëkk nag daa ko fàttaliku ci ñetti fani koor gi di bis bi mu génnoon àdduna ci atum 1990 ginnaaw nag bu sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke toogee toogaayu Mbàkke sàkku woon na nag ci njabootu sëriñ Abdou Lahad Baara Mbàkke ñu bàyyi nag bis boobu nag di ñetti fani koor gi di bis nag buñ daa fàttaliku nag sëriñ Abdou Lahad Baara te yóbbu ko nag ñu ngi fàttaliku nag sëriñ Abdou Baara bu njëkkitim guddi ak bëccëg daa doon ginnaaw bu ko sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar Mbàkke jëlee nag ci ñetti koor gi ñu yóbbu ko nag ci juróom-ñetti fani koor gi ci la sàkku woon itim nag ci njabootu sëriñ Abdou Lahad Baara màggalug bëccëg kon nag boobaak léegi itam nag màggal gi jóge na ci guddi itam nag dem ci bëccëg ñuy ñaan ci doomu cheikh mamadou lamine baara mbàkke ba ka cheikh mamadou lamine baara mbàkke fayoo woon rakkam ja sëriñ abdul ahad mbàkke yàlla nañu ko suñ borom fayal te yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko